mbokki Sénégal mbokki réew mi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 su may naaw ci appuyage bi yegg si sax dinaa ko def parce que dama seetaan benn interview bu Boy Malika def ma toog tamit en tant que jullit ak doomu aadama ak moroomu doomu aadamaam mbër ak moroomu mbërëm tey man sama loxo jotul sama ginnaaw te li ko dal noonu mu tëdd jomb ma man soq te tey man mii sama loxo jotul sama ginnaaw bu ma daloon dinaa bëgg ndimbal su ma yoroon ay milliards tëdd ci su ma dalee mun naa jël ci sama milliards yooyu faju comprendre nga mais comme moom tey mag moom ñoo yem suñu loxo jotul suñu ginnaaw ba tey mu dugg site internet bi def benn communication def benn interview boo xam ne man dama ko seetaan barki Seydina Mouhamed yeggalewu ma ko sama yaram dafa daw parce que bi mu nee woo naa diw woo diw mais dañoo filtrer sama numéro te bal bi yii may sentir muy dox sama biir xol bi ñi dee gënuma leen. nañ ma bàyyi fu ma yàlla yemaleeg moom ma yem fa xam ni fii la ma yàlla yemale ndax ñi dee gënu ma barki suñ Tuubaa yeggale ma interview bi dama ci yëg sama bopp xam ni tey man mii lii ko dal nii bu ma daloon tamit bu ma amul ndimbal tamit nii lay demee ci man rek ndax sama loxo jotul sama ginnaaw muy suñu frère nekk booy Malika comprendre nga soxla ndimbal te depuis boobu ba léegi mu ngi koy jooy seetaan naa interview yu bari mais démb ma ko seetaanee dama xam ne affaire dafa gën a sérieux parce que tey bal bu nekk ci yaramu nit di ci dox loolu loolu danger la bu rëy sax. waaw moo tax ma toog woo suma grand frère Pape moom nga xam ne bu waxee nit ñi dañ koy déglu woo mobile xam naa ko bu baax a baax a baax bëri nañ man ak moom làmb boole nañu mais xam naa ban genre nit la xam naa ban xol la yor ci lii lay dox suba ba guddi jot muy lu nit ñi yëg ak lu nit ñi yëgul barki suñ Tuubaa moo tax bi ci affaire bi nee nii sama xel ci moom la njëkk a dem bi ma wooyee Pape ba pare moom laa ci teg rien que pour ñu dimbali suñu frère bi nga xam ne tey moo tëdd soxla ndimbal kese. ñun ñëpp nañ préparé ñun ñi nga xam ne sama classe gi nga xam ne yoruñu dara nañ préparé daj suñu kees di ci sànni chaque jour 200 wala chaque jour téeméer pour boo feebaree balaa nit ñee taxaw di def nga defal sa bopp. parce que tey gis nañ ni mu demee nii du yoon tey ay champion yu mel noonu ay xale yu ndaw làmb soxla leen ñu seen famille soxla leen comprendre nga ñu war a nekk leneen suba ëllëg tey ñoo tëdd feebar booy bi liñ ko laaj pour opération 6 millions depuis boobu ba léegi booy bee ngi toog affaire yi di. tey bu génnee fii suba mu génn fële 6 millions dañ ko bugg a seetaan léegi ba mu génn àdduna wala yàlla suñu borom jël ko ñu doog a commencé réagir naan non dinaa gérer famille lii dinaa gérer famille lay amul sens moom mun na ko gérer famille nañ ko dimbali ñu gérer mu gérer ko famille ndax góor la te tey fekk yàlla nga koy may nafsoom bii muy am wér-gu-yaram lu woy juróom ñàkk ci dundam moom mun na ko indiwaat kon ñun ndimbal boobu lañ ciy ñaan te ndimbal du par force soxla xeebuñ ci dërëmu kenn. dërëmu kenn xeebuñ ko si lu ci waay def rek ñu santee loxo ki deful kay lañ xamul nuñ koy def mais ku def rek dañ lay sant booy Malika soxla na ndimbal dañ leen di ñaan li laa war a suuli lépp lu ci waay mun a def te yàlla képp tax nga def ko nga dimbali ko booy bi nekkaat ci ay condition am ñun loolu dong moo ñu fi taaj amul leneen lu ñu fi taaj. li ma li ma jaaxal mooy moo tax feebaru mbër waaw man moom ay association mbër wax dëgg fa yàlla yooyu maîtriser wu ma ko ndax kenn mësuma see woo kenn mësuma see wax dara man ni nga koy déggee noonu laa koy déggee te mbër laa comprend kon mooy li ñu wax keroog rek maam làmb même mbër yi ci seen biir sax déggoo amu fa booloo amu fa ndax tey ñaata association nga dégg ci mbër yi ñaata association nga dégg du benn du ñaar du ñett man rek xam naa ñetti association mbër yi ñaata mbër lañ tey bu ñu defoon benn bolog bu ñu nee benn balaa kenn wax dañ ñuy fajal loolu parce que dañuy xam ni bolog bii nii am na doole tey am na foo xam ni duñu xaar sax ñu fay yegg mais amuñu bolog boobu tey moo tax tey lu ñu ku bëgg a percer mbër da koy percer mbër lañ tegul muy dara boo bëggee dégg dëgg Sénégal teguñu mbër muy dara. maanaam état bi sax teguñu mbër muy dara parce que bi ñu jotee seen xaalis boobu noonu li nga dégg ñu jox musiciens yi ak li ñu jox mbër yi mu ngi mel ni tey mbër yi dañ leen a sarax comprendre nga te ñun xaaruñu fi loolu. ak waykat yi ñaar joxuñ leen xaalis. jox nañ leen xaalis. waa promoteurs yi la moom foofu laay waxee mais waykat yi jox bu ñu demee bay jox waykat kay bàyyi mbëri bàyyi kon te làmb Sénégal benn sport national lañ am muy làmb leneen ñu def rek dañ koo waaliyaani kon tey làmb la ñu waroon a gën a respecté làmb la ñu waroon a gën a fonk ndax li liy dundal làmb li muy dundal ci ay doomu aadama par jour kenn xamul nu mu toll comprendre nga mais ba tey amaguñu suñu gëdd ci làmb mais man loolu teguma fii ay waxu làmb kii man làmb li ma ci am bariwul entraîné lekk tëdd laa ci am am combat dem bëri ji ñaan yàlla may ma ndam bu ma yàlla mayee leneen ma sante ko suñ tuubaa dem ñibbi comprendre nga li ma ciy wër bu ma ko ci amee si sama njaboot la jëm dew ma ci pour ay caaxaan wala benn affaire li may jooy nii maa gën tuuti ci jooy ko te boobu ba léegi ñu ngi koy jooy mënul faju li ma dëj fii mooy Boy Malika moo ñu fi dëj suñu fereer la dañuy ñaan ndimbal te ñaanuñu ko làmb de ñun dañ koy ñaan diaspora bi ñëpp képp ku ci am sa ñaar fukk wala képp ku ko mën a dimbali te yaa ngi ñuy dégg nga dimbali ko te yàlla tax moo ñu fi dëj di santaat suñu grand bi Pape Sarr di ko remercier bu waa ah, ndax tey moom ci lii buñ ko ci woowee rek day daw ñëw comprendre nga dañ koy sant di ko ñaanal gudd fan ak tawféex ak wér gu yaram comprendre nga waaw di ñaanal ñëpp jàmm waaw te am na ku ma laaj sànq ni ma ndax yéen li ngeen di def nii da ngeen ci soxla ku leen gërëm ak yooyu man soxlawuma ku ma ci gërëm man man yàgg naa dox ci lu mel nii ci lu baree bari te nit xamu ko ba ci suma frère bi tëdd muy jibi ama daanaka daa dama cee kontaan ndax gis naa tey façon ndimbal bu nekk te gisuñu ko woon démb ma nekkoon ci nag di daw guddeeg bëccëg mais soxlawu ma ku ma ci gërëm soxla ma ku ma ci sant soxlawu ma ku ci wax lu rafet ci man li ma ci am nii fierte bi ma ci am nii ak mbégte bi ma ci am mooy booy bi tëdd na tawat ñu ñaan ndimbal ba yàlla suturaal ñu ñoom grand Pape saar ak ñoom Mortal ak ñoom Lilou di ci daw ba yàlla sotti lépp. mbégte moomu laa ci am te mënumaa am mbégte mu romb boobu mbégte beneen bi may am bu romb boobu noonu mooy suñu boroom dogaloon booy bi yàlla fëgg boppam mu jug ba nekkaat ci ay activité am bu boobaa moom bu fi yemee sax neex na may sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni liñ fi wax nii mobile li mu wax dëgg la de booy Malika yàlla xam na ne aw ma numéro xaw ma fu mu dëkk tey bu ma buggoon dem seen kër bi wallaahi buñ ma tegtalul seen kër du ma fa dem numéro téléphone am ku ma ko laajoon nii nii mënuma la koo jox mais dama ko xoolee comme suma bopp rek xam ne suñu fereer la te xam naa ni guddi ñu toll nii li muy yëg du ko wax sax nit dem na ba ni nañ ma bàyyeek lii nii ndax ñi dee gënuma leen fu ma yàlla yemale ma xam ni fii la ma yàlla yemale kàddu boobu noonu dafa des ci sama bopp te damay ñaan yàlla yàlla na ko yàlla suñu borom yëkkati ndax moo ko tëral yàlla na suñu borom fëgg boppam ci barke Seydina Mouhamed di santaat mobile mii bu baax di ko ñaanal tawféex bu baax a baax bari suñ Tuubaa li tax ma woo Pape sama xel daj mobile man maa xam xam naa mbër yu bari ñëpp laa amal relation yu nice sekkuma kenn lu ñaaw mais li tax ma woo Pape sama xel daj mobile xam naa ni day dox ci lii du tey comprendre nga te xam naa ni tey bu waxee am na ñetti personnes yoo xam ne tey war nañoo mën a dimbali booy Malick Pape mii. tey ndimbal yu bari yu jugee ci problème bu jibi ama ci loxoom la jaar ci numéro am la ñuy woote te am ci ñoom yaakaar moo tax ma woo leen kon tamit dama leen di ñaanal tamit xam nga yaakaar boobu yàlla bu ko suñu borom tas ba booy Malika jug ba keneen ak keneen ku tëdd feebar ñu daw ci dox ci ba yàlla suñu borom fëgg boppam di leen remercier yéen i tamit. parce que bi ngeen fi ñëwee fajar ngeen fi ñëw yéen a ma woo ma jug ci kaw lal sedd na xam nga ngeen bàyyi lépp lii mooy wane ni ñun ñëpp ñoo farlu ñaaw xaju fi. di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal suñu borom yokk leen ba ngeen yokku barki Seydina Mohamed ñaanal ñëpp tawféex ci barki Seydina Mohamed jaajëf.